ak demante ak recevoirante boo ne Tiwaawoon ñun ñu ngi fàttaliku bés déparé nañ Sénégal euh, Kaolack ànd ak Chérif Bon Omar ñuy tuubal ay nit di dox ba añ ci yoon wi dox ba egg Tiwaawoon fañ jëmoon ca guddi mais bàyyi mi ngi dal ci kër alxalifa Ababacar Sy fa la dal ñu xëy def yi ñu war a def yépp bàyyi fa Chérif ba ñibbi ñi ngi fàttaliku ñun ñëpp temps bi الحاج منصور سي نيوي سن نيوي كولاخ غاني سي فباي نغان غو خامن كانغام يم اندال واخوما صاح يوغا مي سن سن باخي رك ني جانكاي واختاني بليغي موي بس بسو يالا هي اك بسو موك ني نيك فو غودي ببرسات با نغان غا مو نيوك جام تايتام ديغنتي مك الخليفه العام حاج عبد الله السي moom ñu nangu nañ ci làmmiñam bés jotaay boo xam ne sax ay kilifa yu mag a fa nekk nee na man ak Cheikh Ibrahima Niass du ñaari nit kenn lañ wane na ko ci wax wane na ko ci jëf mosu ñoo umpante ci dara te loolu moo jàpp te loolu la ñu bàyyee ñu ak moom ba léegi xaj Abdoulaye yeeg mbooleem rakkam yeeg mbooleem ñun ñëpp. Kossy TV. boo demee Touba bàyyi ak Modou Moustapha Mbacké bëgg yàlla yonent ba ak fonk sëñ Touba mi tuddee woon boppam te muy dëgg xaadimu rasul tax na ba. Euh, sëñ sëñ Mourou Moustapha ak Baye ñoom laajal mag ñi rek ñoom daanaka seen dara mës umpante moo taxoon sax moo doon sirru Cheikh Mbacke ni mu amoon direct contact ak Baye euh, xulafaaw yi fa ñëw gannaaw ga ci Touba muy sëñ Fallou Mbacke yàgg naa nettali loo xam ne toujours dama koy nettali ndax sëñ Fallou moom dafa doon nit ku ñëpp xam ci xam-xam ak nag euh, fulla waaye itam amee na jikko yi borom xam-xam tëjuwul. Baye Niass gane ji ko mu dugal ko néegam Baye nee na benn bés rek dafa fàddu tuuti ñëw euh, ree ni ko sëriñ bi xam nga fu ma demoon dama doon seeti waañ wala fa xew ndaxte euh, wolof daju ne euh, ñaare koo sédd koo sédd koo sant mu seddale dafay sédd waayam balaa sédd sa waay te man te lii yow lañ koy ganale dama bëgg ñu indi ko fii muy benn ñu toog fa la jaar seen diggante jaar seen diggante dégg nga day ba koy gunge gunge ko ba ca biti mu ko ne am na garab goo xam ne fii ku may ku may gunge fi laay yem ak yow wàññeeku même borom réew mi sax maanaam temps booba Senghor mu ne ko waaye nag nañu ba ca kanam ndax yow yow ni nga mel moo tax dinaa àgg yow fu ma dul egg ak ñeneen ñi gunge xam nga loolu dërsi la bu ñuy jàngal ñun soppe yeeg ndongo yi ak ñi yeggul ci ñoom wane ne noonu ñu mel ñoom ñun loolu la ñu war a mel ñun itam ci suñu diggante. te kër yi ci des yëpp nag ci dëkk bi. mënoon naa koo gàttal ci réew mi mënoon naa ko gàttal ci bi Baye Niass jógee ànd ak kilifa yi nag ñu créé euh, euh, conseil supérieur bu sëriñ si ci réew mi ba boole ci sax yenn sëriñu Mauritanie ñu def Baye Niass secretaire général mu tax na mu war mu sol daalam war oto moog ñam àndal topp réew mi dëkk par dëkk fu ne mën a dem nañ ci sëriñ jub recevoir nañu wax nañ ko lii wax nañu lii nii la demee bindal ko boppam ci rapport activité boo xam ne moom mbindam loo xam maa ko denc ba léegi ndax moo ma ko jox ndax booba lu mu bindaan daf ma koy jox ma sotti ko man kenn wala maag Saliou Mbacke rahimahullah bi nga xam ne moo nekkoon ambassadeur te gaañu bu yàggul yenn ko yàlla yërëm fu dem na fa mboolem sëriñ suuf si yëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp mawaddatu moo jaar seen diggante te loolu moo jaarut na ko ñëpp jàng ñu jëflante ko ñun ñëpp ci suñu diggante noonu la meloon nag Sëriñ Bachir Mbacke nag xusuusan ndax kooku moom dafa nekk dëkkandoom ci Kaolack ndax saam googu tubaab yi dogaloon bàyyi muy tool yu bëri moog Sëriñ Bachir ñoo ko ñoo ko diggaale Sëriñ Bachir Mbacke egg nag bàyyi ci bi bàyyi taalifee téere bi ci zakatu haareen nusxa bu njëkk ba moom la ko njëkk jox dañu ànd ba bi ko Sëriñ Bachir mujjee seet si radiallahu anhuma boobu man tàllal naa Sëriñ Bachir livre d'or bi nga xam ne moom lañ amee woon euh, mu mu signé ca bés booba mu ñëw nuy si bàyyi ma bàyyi ko fi ngir taarix fan yooyu sëñ Abdou Aziz ñëw na fi xalifatul am ma jox ko la même chose mu signé fa ma bàyyi ko fi ngir taarix noonu la mel kunti yu ne saadal kunti yi dégg nga ñun ñi doon jàng ci pegg baay am nañ ay zumalaaw ay promotionnaires yoo xam ne ay doomi kunti yu asil lañ Mouhamadul Bekkaay Mouhamadul Kunti mi nekk tey imaamu Ndiassane non seulement bokkoon nañ di jàng mais bokkoon nañ nekkal nañ bokk lal. ak rakkama ak ñoom Moustapha Kunta ak Bekkaay mu ndaw ma ñëpp dañ leen a yebal foofu wane ne ñoor wante wuñ. تيتم بمدو رلاسيون قتشو اي مناطق النفوذ دغه يونتي سيرينم نيب دينا جي موي دينا نيب دعوت بي نيب لاكو يالا سانك سانت ني نك نيو تي مان لو تي كين مونوت نيوم سيرين سي موتا سين تعاون ورا رافيت موتا خيت مو رافيت باي نك نيوم نيب نك نون لا ملك سيرين جي لايني سورتو سيرين بو ماك با موم داف خم خمي افارم افيرم اكي خبارم داف سي جانغال لو بري بري بري علاقات يو يب نك داف دغ اندك فول mais nag ak yeneen alaqaat ak rapport yoo xam ne dox na digganteem ak nit ñi yoo xam ne yàlla rek moo ko xam ak la tax itam tasaaroowul mooy alaqa ak jëflante bu eggee ci genn sellal gi mën naa am ku ko fekkewul doo ci xam dara ndax ndax ku mën doon ci ñaari atraaf yi du ko nettali am na benn sëriñ bu nekk tey tey tey ci Kaolack te nekk imam ratib lam jumaawu lew na ñu koy wax sëriñ Adama Kan maa ko dégg ci stade Kaolack ñuy célébrer anniversaire ñuy célébrer semaine culturelle Maam Alaaji Abdoulaye Niass muy wax yu rafet ci Maam Alaaji ak wax yu rafet ci Baye ba gàttal ko ne Baye jëfam yëpp mën nañ ko koo may sax waaye loxoom bi rek yóbbu na ko aljanna maanaam tabeem gi mooy loo xam ne shahada ba xam ñi ngi ciy jafandiku Chérif Younous Chérif yi nekk Casamance ci suñ daara ji seen sët yaa ngi ci woon te seen jëflante mook Chérif yi nekk yëpp Abou Bakrin nga xam ne moom lañ fi fekk ñun ñooñu ñëpp tabaarakallaahu loolu mooy alaqa ci biir Sénégal nag alaqaat yi dafa rafet yaatu boo demee nag ba ca biti Sénégal. bàyyi yemul biir Sénégal wax naa ne mënu fi woon a yem ndax nee na moom jamonoom diine dafa am damm-damm te yàlla daf ko daf ko amal aw jëdan yi xaqan daf ko amal ngir mu jàng damm-damm yooyu noo ko firee rek pour man baax